lan motax xam-xam ak teggin mu ànd gën waye lan motax bu ñaari munta and teggin gën lan motax ndax teggin na gën judd bu rëy fi ne nu way mën juddoo lu xóor wu sa mam wala sa baye mën def bo amé ay teggin hmm. lamboko ko mën nga dund ba faatu do xam loola hmm. ndax bo amé teggin suñu borom dalay rus hmm. bu la rusee malaaka dañ lay rus malaaka bu la rusee ñoy inspiré doomu adamay dañ lay rus ku xamal sa jur mbaa sa maam mbaa saw askan lu naka su dul noonu sax say teggin mooy tax du jàkkaarloo yow mu guddi la ko wax teggin a gën xam-xam ndax science sans conscience nekk ruine de l'âme hmm? Hmm. te teggin boo ko amee amoo xam-xam foo toog ci boroom xam-xam yi dinañ yéex a xam ndax am nga xam-xam wala amoo xam-xam hmm. teggin a gën alal ndax boo ñàkkee toog ci ñi am sax ñi say teggin mooy tax ñoom lu ñu am dañ la ko yéeneen te yàlla rek tax <laughs> ñu boole la si waaw kon motax ñu wara a ak ay hmm Serigne Touba day ñi nga Nous bi gens mhm. nañu leen jox cër. Mhm. ñi nga Nous ne ño fété mak nañu les ñi ñu fété mak té ñun ñi jamono ñu def suñu ku nekk def sa def sa morom ni mhm. ni projet de société bi la nekk. le le manam nous manam les valeurs de solidarité de l'amour de son prochain. surtout loolu l'amour de son prochain maanaam bëgg bëggante suñu biir ndax bu ñu bëggantee rek mooy waral du ñu xëccoo mooy waral ñu yéeneente jàmm mm. mooy waral ma yor dara ñu séddale li moo ko ma yéene la ci te loolu mooy suñu principal problème nag mm. séddoo bi